sallallahu ala muhammadin nag muy salaatu googi di sallallahu ala muhammadin mooy bi ci gën a gàtt ci salaatu ala nabi yi ba tax na mën nga cee def lim bu takku ci diir bu gàtt te fii gàmm soreetul eh, kon ñoo ngi leen di soññi ci ku ci bëgg a def lim yu baree baree bari te takku lool mu jël salaatu googi di sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin ngir mu mën cee def lim bu takk